sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne signature contrat ba moo nekkoon ci weeru kooru jay sa ci ixtikaaf bu mu doon def ci jàkkay daaru xudus ci jàkka jooje la ci la signature contrat ba ne woon ci la amee woon ci teewaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam rawatina waa ahlu badrin signature contrat bi mi ngi amoon ci kooru bay sasin ci korite bay sa sit nag ci la sëñ bi génne Touba sañc Mbàkke Baari nekk fa korite digg Tabaski Tamxarit safar ca fukk fan yi ak juróom-ñett mu xëy génn këram dem war nag liggéey contrat bi liggéey boobu nag ak lañ doon signé mooy yoonu géej gi nga xam ne def na fa juróom-ñaari at ak juróom weer ak ñaar fukki fan ak ñeent bi dapt bu fekkee mooy bis ba mu génnee ba bis bi mu dellusiwaatee ndakaaru waaye nag bu fekkee da ko topp di ko topp bis bi nga xamee ne ci la delluwaatoon ci këram muy daaru ma naan nga xam ne mi ngi woon ci fan yu njëkk ci tëbës gi loola day mat juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer ak ay fan weeru safar wi nag weeru nit yàlla yëpp la weeru jullit yëpp la nga xam ne mooy weer wi nga xamee ne sayidatuna Fatima bañ koy jox sayidna Aliyu di ko ko may ci weer woowu lañ ko joxe woon muy weeru safar waaye weeru safar mooy weer wi nga xam ne ci la Sëriñ Tubaa njëkk ci la sànce dëkk bi nga xamee ne moom la njëkk am muy Daaru Salaam nga xam ne ci safaru dasasin bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak ñeent ci la sànc Daaru Salaam waaye ci weeru safar ci la génn jëm ci tukki ba muy yoonu géej gi wax na ne yàlla aar na ko weer wu ne waaye rawatina weeru safar salaatu lasi fi kulli saxarin wa fi safar xamaani xalaa maahin maxal xabs wa safar wax na ne raditu xanil mawla wa xan xayri xalqi alayhi salaama man lahu ubtu bi safar ak tonomoom feeñ na ci weer wu ne waaye dolli ko tonomoom it ci weeru safar la nga xam ne saa yu weer wi ñëwee ñu yokk ngërëmam ak ay mbiram ak i ngëneelam mu ne rabaaxiya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zaydu ribhi wa fi sawar sama tonoo ci liggéeyal gën gi mbindeef feeñ na bir na leer fi kulli sahrin zaydu ribhi bépp weer sama doliku ak sama tonoo dana ci feeñ rawatina nag ci weeru safar kon sunu waxtaanu tey fay jëm ci benn bayit boo xam ne bu ñu ko jàngatee danañ ci gis li waral màggal gi ak nu ñuy màggalee ak lu tax sëriñ bi digle màggal gi bayit woowu mi ngi nekk ci xasiid ak safar maha suhurika bika ka te moo tàmbali allahuma bi xaqi wàccillaahi taala al karim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin lazi tayabta bi jaahi صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك بريمي تي بير خاسيد غوغو دنج فك او بيت موي هو الذي صفا وفرح ورد لخير نحمي ما اسا وما ورد bayit woowu lañ fas yéene lañ bëgg a waxtaane ak yéen comme ni ngeen ko xamee mbokk yi seen émission xasaayit waxoon na leen ne danañ waxtaane ak yéen ci xasiida bi sifatan ama waaye danañ jël ak xasiida waxtaane ko waaye danañ jël aw bayit waxtaane ko kon tey dañoo ñëw ci jël benn bayit waxtaane ko incha allah waxtaane bayit nag wala firi bayit dafa am ñett yu mu làmboo wala ñett yuñ koy defee am na ñoo xam ne nii dañuy firi bayit ci li ñuy wax ak tafsir xala zahirihi xala zahiriha wa mahna xal loxaw yi dañuy jël bayit ba la firi ci kaw ak la baat yi firi ñu firee ko noonu am na ñoo xam ne nag dañuy jël aw bayit firee ko ci al isharaat nga xam ne ahlu dawq ñoom ñoo koy def waaye am na nag ñoo xam dañuy jël bayit firee ko aw bayit muy tafsirul bayit bil bayit nun nag kon bayit yi ñu bëgg a jàngat tey dañ koy def ci jël aw bayit firee ko aw bayit incha allah ngir xam ngeen ne xasiir sëñ Tuubaa yi xasiir yi da xasiir day ñëw ngir firi morom ja ngir leeral morom ja waaye bayit dafay ñëw ngir leeral morom ja waaye sax xaj su bayit sax dafay ñëw ngir leeral sadru bayit te mooy xaaj bu njëkk ci bayit bi dafay ñëw ngir leeral xaaj bu mujj ci xaaj bu mujj ci bayit bi dafay ñëw ngir leeral xaaj bu njëkk ci bayit bi loolu su ma ko dee leeral mooy xool bayit bi ulaika al xawm laa yasxaa jalisumo is yàkk si boonal muridina sahaadaati bayit woowu nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax nee na gaay yi may tàgg ci xasida gi muy xoqal bu kaaw te wane seeni mole gaay yooyu nee nañ képp kuy toogaale ñoom doo taxay de ngir lan dañuy fàggul jullit bi ak taxe gis nga bayit woowu dafa am bayit bu ko firi mooy xadisuhum dikru muxnin naafihin samadin la dikru hindin wa lubna fi lmaqaalaati nee na gaa yu baax yooyu nga xam ne képp kuy toogaale ñoom doo taxee di gaa yooyee seen waxtaan mooy tudd yàlla seen gisaay dafa toog ba dégg fa lu jëm ci wàllu àddina wàllu politique seen jotaay ba fa tegee tudd yàlla rek ak lu lay tax dellu ci yàlla ak lu lay fàttali yàlla nga dellu ci addis ba addis ba wax ne sallallahu alayhi wa wax ne sun borom am na ay malaaka yoo xam ne nii malaaka yooyee seen métier seen la ñuy def daal mooy sun borom da leen di yebal ñuy wër suuf si di xool fépp jataay bépp jataay bu ñu gis ñu fay waxtaane borom wala ñu fay tudd sun borom jataay boobee ñu jàng ko opéré ko dellu ci sun borom wax ko ne ko dem nañ ci sa suuf si kat waaye fekk nañ jotaay sàngam nit sàngam ak nit sàngam ne fa di la waxtaane suñ borom ne seede leen ne sama jaam yooyee toog ci sama jotaay boobee di waxtaane jéggal naa leen jéggal naa leen seeni bàkkaar bu ko defee malaaka yi ne ko diw ak diw ak diw ña nga woon ca jotaay boobee waaye déglu sa waxtaan wa wala déglu sa déglu si loola waxtaan woowee taxu leen a jóg suñ borom ne laa ubaali xaw mun laa yasqaa jëlisum sama yoon newut ñoom ci ñooña ngir sama jaam yi toog di ma fàttaliku ñooña képp kuy toogaaleeg ñoom doo texee de kon gis nga bayit yi muy xaddisum dikru muxnin naafihin samadin la dikru hindin walub naa fi maqaalaat yi ni mu firee ulaika al laa yasxaa is yaksiboona al murida asaadaati waaye xoolal bayit bi ci waxam ulaika al laa yasxaa jalisihum is yaksiboona al murida asaadaat xaj su bayit yi ni muy firee sëb yu bay bi yooyu yële gaay kuy toogaale ñoom doo taxee de ngir lan kon li topp ci baydu yi li des ci baydu dafay leeral la njëkk mooy ngir ñoom dañuy fàggul murid bi ak taxe xoolal baydu yi tuuba li abdin muridin saadixin lahuma bi xidmatin aw bi xubbin aw xadiyaati taxe ñeel na jaam bi nga xamee ne jaamu suñu boom la di murid te dëggal ñeel gaa yu baax yooyu léegi kon dafa mel ne ñett yi mu tuddoon mooy tu abd ak murid ak saadix nga xam ne pour nga doon saadix da ngay doon murit pour nga doon murit da nekk ab jaam bu nangul suñu borom waaye mu mel nag dafay ñëw ngir leer nag nu ñuy nekkee ab murit bu dëggal ñeel ñooñu mu ne bi xidmatin aw bi xobbin aw xadiyaate gis nga kon xaj su bayt bi dafa ñëw ngir leeral sadru bayt bi xoolal feneen naw mi xibaadut rabbin laa sarika lahu xal bi tudabbiru aayal tuurisul xikma nee na sama samay nelaw jaamu yàlla bu sel la ñeel sun borom bi nga xamee ne amul bokkaale mel ne kon dafa ñëw li topp ci bayit wi li topp ci ci li des ci bayit wi muy xal bi tudabbiru ayen théoriquement dafa ñëw ngir leeral naw mi xibaat rabbin la sarika lahu samay nelaw jaamook sun borom la moom mi nga xamee ne amul bokkaale ngir lan ngir sama xol waxtu bu may nelaw dafay setantal ay aaya yoo xam ne dafay jur xam-xam bu am njariñ ci sama xol kon xasiida bayit day ñëw ngir bayit day ñëw ngir firi bayit kon waxtaan wi ñu bëgg a def rek ci bayit woowu muy xuwalasi safaa wa farax warad li xëyri na xëy ma asaa wa ma warad ñu leeral ko sëñ Tuubaa dafa wax ne moom suñu borom mooy ki nga xamee ne moo sell moo setal moo teeyal bégal te delloo li nga xam ne naqare na ma mu daw jëm ci keneen ku du man béy woowu nga xam ni indi na ci safar muy saawu safaa ak faawu fara ak ra rab moo la jox safar muy li ñu bëgg waxtaane nga xam ne kon cell googu mbégte googu ak delloole ko naqare jëm ci kenn ku ñoom suñu borom mi ngi ko defal ci weeru safar nga dem ci beneen bayit nag mu mën laa leeral safar googu mooy lan yàlla mooy ki nga xamee ne sellal na lu mu sellal ak dundam moo tax mu ne safayta yaa yi xayaati lil jinaan tayebta umriya atabta lil jinaan yow suñu borom yaa teyal sama dund yow mi aja des ba ajjana yaa sellal sama dund ba ajjana teyal nga sama dund dalal nga sama xel wax feneen ne safat li xayaati duna zajrin wala zulam bi zikrin xakimin xaadali afdal al xilmi suñ borom teel nga sama dund ba ak tooñ amu ci luy waral yeddeel ak jajji amu ci loolu yëpp nag yaa ma ko defal ci alxuraan nga xam ne mooy alxuraan ji xereñ ji tey ci ma joxe gën gi xam-xam mu ne safa xayaati man li xëyri dahaba bi man xala ni wal mu naa nii wahaba suñ borom sellal na sama dund moom mi nga xamee ne dàq na sama lor dund mu jëm ci ñi nga xamee ne ñoo bañ te jël na xéewal jox ma mu del wax feneen ne safayta yaa malikul quddus yaa jaari humriya bi xillin wa fayda naafihin jaari sun borom yow miy aji sell yow mi buur sellal nga sama dund yow mi nga xamee ne yaay sama dëkkandoo ci lan ci lépp lu dagan noonu mu selelee ak tundam nag noonu la selelee ak desam nga xam ne maxaama la moo tax mu ne safa li baxa xaada lii xaada wuddan wa nusratan wa ilman wa aadaban wa lil xayru xat bada yow suñu borom selal nga sama des des googu dana ko leeral ci kanam te jox nga ma ak cofeel ak ndimbal ak xam-xam ak ay teggin tey nag jox nga ma ay xéwal waaye yépp nag yaa ngi ma ko joxee تبير ويا سفر خطه مني سن برام سللنا كاي بيرم اي ماي يسل سفر لي سهوري بالمسايا واهوامي واهدي الى الجنان الى الجنان بالله اقوامي يو سن برام سماي ات سماي وير فسان خو دل اك ماي يسل يس يس يس يس يس يس يس يس te giñ naa ci yàlla ne damay wammat samay ñoñ samay nit ba àjjana noonu suñu borom sellalee ak tundam noonu la sellalee ak desam moo tax mu ne safat xayaati wa safa baqaayi bi man xaba bi ref bi rafi zartiqaayi suñu borom sellal na sama dund teyal na sama dund waaye sellal na sama des lu ci ne maqaama la maqaamul xayaat ak maqaamul baqaa موضح من بمن حبا بالرف ذا ارتقاء الرف ارتقاء نار وكلا لما تيجي بني جدل ب لما وراء حرامة واي من حبنا الرف ارتقاء لتينا بكل مقام الحياة ما يام رف مقام البقاء ما يام ارتقاء بس جوجو سن بيجي نك ما يلم ما يلم لا يرتبي بين بيني فينا اي بكثر الفاء ذاف منورة وهندي كتاب الله كتاب الله والبشر أبدا نحن سمك دس nga xam ne dafa àgg ci maqaamu finaaw ba àgg ci maqaamu finaaw finaawul finaaw jeex ba jeex ci biir jeex ba des ci desug suñu borom nga nee na sama jeex googu nag ma ma jeex ci suñu borom ba jeex ci biir jeex jeex gu sell la gu leer la te téere bi yàlla bi maa ngi ko yore te kon sama mbégte suñu borom saxal na ko jeex googu mu jeex ci suñu borom nag ba jeex ca tàkk ba jeex ci biir jeex ba des ci desug suñu borom nga nag moom lay junjee nag ci beneen bayit wax ne safa liyal baqa zul baqaayi wa kaana li bi rafi zarti xaay suñu borom nag sama sama jeex googu ma jeex ci moom ba jeex ci biir jeex gi ba des ci desag suñu borom gi des googu nag suñu borom selal na ma ko moom mi nga xam ne mooy aji des te nekkal na ma nag ci maqaam ci rafu ak irtiqaa nga xam ne kon maqaama la te dana ko la yàlla ci kanam muy maqaama yooyu nga xam ne ci la jaar kon suñu borom sellal na ak dundam ci ci dàqal ko ñaar yi nga xamne moy tax dundu du sel moy tax dundu du tay moy tax dundu du neex muy gatcha ak ñakare moo tax mu ne safayta humri wa kafayta nañu xajal yaatal baqay wa kafayta nañu wajal yow sun borom selal nga sama dundu ngir lan fegal nga ma gatcha yow yalla mi nga xamne ya aji dess waye fegal nga ma ñakare ñaari rek moy tax dundu du neex gatcha ak ñakare tax des googu mu des ci desug sun borom gi nak motax mo ne sun borom selal na ak dundam ci wommat ko bam jaar ci maqam muy maqamul finaw finaul finaw al ba àgg ci baqaaw bisaatillahi ak baqaul baqay motax mo ne safa hayati man hadani arifa bi wasirtu min fuyudin kharifa sun borom selal na sama dundam moom mi nga xam ne moo jàpp sama loxo wamadu ma jaar ci maqaam yépp ba àgg ci moom ba àgg ci ba xaw zaat ba des ci desug suñu borom gi ba xam jëmmi borom ba àgg ci maqaamul xaarifina billaay àgg ca njabootal la moo tax mu ne wa surtout min fu yoo din xaarifa du ma dañ di tànq ci mbàmbulaanu desug suñu borom googu moo tax maqaam yooyu mu jaar nag moom la wax ne suñu borom teeral na ko maqaam yooyu mu jaar teyal na ko dëkk boobu nga xam ne ca la jëmoon muy dëkku baqaaw al baqaaw bi zaatillaahi moo tax mu ne safan nabi bil ilaahi lil xalat kama bihi safaa al mamar wal balad mamar googu ak balad googu mooy maqaam yi mu jaaroon balad ba nag dëkk dëkkwaay boobu nag mooy nag des gëm des nag ci resug suñu borom nga bu dee ci faa gi maa ngi maa ngi woon yow ci wëllu si safaa nga xam ne moo jàpp safaa gi moo jàpp saatuk safar faagi jàppuk faaw farax mu ne sun borom jox na ko loo xam ne ci lay desee di nekk mbégteem ci lay amee dolli mbégte ci lay nekkee mbégte mbégteem yonent bi sallallahu alayhi sallam fustu bi maa yësudi nii tabshira wa bii yasuru maalikil basira sun borom jox na ma loo xam ne ci weeru safar daf may dolli mbégte te ci man lay bégalee yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla bégal xolam ci weeru safar mu ne farax faraxat qalbi fa shukran wa mahmadan liman lahu jutta bi jilaani wa daari sun borom bigal na xolom ci taqale koog nax-nax ak ñàkk ak coono nax-nax yooyu mooy ring-ring yooyu amoon ci jay si te dana ko leeral ci kanam moo tax mu ne faraxtu min al aqdaari wal faqri wal xanaa wil mustapha lillaahi wajaxtu aqlaami sun borom digal ko ci wéru safara ci aar ko yonent bi aar ko muy ñaari aar yo xamne bokul dana leer farahtu bi anna allah rabbi wa hasimi wa anna al muqaffa qad hamani bi ihsani bigna ngir yàlla mi nga xamne moy sama borom moy kimay may aar sun borom mokay koy aar benn lor du ak ci mom du dugg ci mom waaye wa anna al muqaffa qad xamaani bi ihsaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy aar ba benn lu baax lor lu rafet du ko génn kon ñaari aar yu bokkul la yàlla moo koy xaar ba lor du agsi ci moom yonent bi moo koy xaar ba lu rafet du génn ci moom du ko génn moo tax mu ne faraxanil jamilu xaama bam sa sin kamaa ma xaa ak daara xaama jey sin kon ak daar yooyu moom loon wax ci faraxtu min ak daar yi ak daar yooyu kon mooy amoon ci xaama jey sin sun borom mi nga xamee ne mooy aji jamin bigal na ma ci xaama mu seen ginnaaw bi nga xamee ne effacé ne nax-nax yi xaama jay seen tënk ngir gàttaay waxtu gi raa gi mooy waradda li xëy na si maa wa maa warad mooy raddal asa di si waa saati wa wajjahu li man xalaat yi wari xat kaani bi sarat suñ borom ci weeru safar ci la ma dàqalee lor mu jëm ci sama lor wu jëm sama jëmm ba mu ko dàqee nag da ko yóbbu ñi nga xam ne ñoo ma bañ te yàlla nekkal na ma ci ci as sadat radda makari, liman man masa naha ani man la yudi minaha lolou ci wéru safar la sun borom lima ma naqare woon yépp jël nako mu jëm ci keneen ku man te yalla dana ma dana ma saxal di ma jox ay may ñi don xex touba ba genn ko luñ bëggoon bi baña a ko moo bi ne rafaxani raafi qabada bihi hidaya man xalaa nin sun suñu borom yëkëti na ma yëkëti go xamni ñima bañon ma bañoon ñëpp suufi nañ luñ bëggoon ko physiquement luñ bëggoon éliminer am njàngaleem éliminer ay xalaatam rey ko ci xisiyan wa maxnawiyan sëñ Tuubaa nag ñooñe lañ bëggoon nag loola dafa dell ci ñoom moo tax mu ne radal mumitu li xidaahul mawta wa xaadili baqa an baqaahu wal fawta ñu ma bëggoon a éliminer xisiyan wa maxnawiyan ilimine samay idéologie samay xalaat ba tax ñu génn ma ñooñee lañ yéene woon dol la ci ñoom man sama xalaat ak sama idéologie dafay des ba faaw gis nga li mu wax nag ci bayit yi muy faraxanil jamilu tafrixan yedoom wa and na ni loo xabdul xadim ak faraxanil jamilu xaama bamsa sin kama maxa ak daara xaama jay sin loolu lu yéeme la mooy li waral magal gi sëriñ bi ñaari safar rek la dund bari na nag safaru jay sin ba bamsa sin bari na waaye rek sëñ bi da koo xaaj ñaar nga xam ne kon mën ngaa wax ne ñaari safar rek moo xam ci dund sëñ bi safar bu njëkk bi nga xam ne yàlla day jëfanteeg moom ci turam wii di jalil nga xam ne mooy jalaalullaahi booba mooy safaru jay seen bi nga xamee ne ci la nattu yi tàmbali te saa yu safar ñëwee ñu ful ko mu gën a yokk comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxe woon ba ci safar gi nga xam ne ci la diglee màggal gi nga xam ne mooy xat mi soxna Mariama Jaxate génnee àddina walla bi mu génnee àddina ak bi ko sëñ bi digle sorewul safar yooyu yëpp nag sunu borom mi ngi ciy jëfan jëfanteeg sëñ Tuubaa ci jalaalam lay jëfante ak moom muy natt yi nga xam ne mat na deux cent quatre-vingt natt li mu suratul ahwaal safar yooyee moom la sëñ bi tuddee safarul xuruj ji nga xam ne mooy safaru taxaru bi wa taxa bi wa daxwa safar yi nga xam ne nattu yeeg coono yeeg ak exil beeg yëpp ci la nekk mooy ak daar yooyu sëñ bi di wax ci yooyu naan faraxañal jamilu xaama ba am si kamaa maxa ak daar yi xaama jay si lii ma wax nag muy at yooyu yëpp nag suñ borom mi ngi ciy jëfanteeg sëñ Tuubaa ci jalaalam fan la ko sëñ bind mooy jalaal yi bi maa lii baana fii xaama jay si jalilun kafaañal kayda wa dura wal walam suñ borom jëfante ak man feeñu na ma ci xaama jay si ci jalaalam bi ci topp nag mooy faraxañal jamilu xaama bam sa sin googu mooy safaru safar yi ma la wax nii nga xam ne mooy safar yi jiitu woon moom la sëñ bi wax safaru junatun safaru jay sin junatun xane naasi mil xayl fi dalika saxru fi dalika sahri xasbuna allahu wa nihmal wakilu loolu dana leer ci kanam lu tax moo xam loolu ndax safar yooyu sëñ baa ngi tolloon ci xaala xasbunallahu wa ni'mal wakiil am na safar yoo xam ne sëñ bi am na fenn fu mu toll loolu dana leer yées nag mooy safar yi nga xam ne sunu borom ci turam wii di jamil lay jëflante ak Serigne Touba muy jamaalam safar yooyu mooy safarul muks wa raaxati wal itlaax wa tasrix bilaa radi sa in min a wa taxe bi mooy safar yi xamee ci la sunu borom nekkalee Serigne Touba nekkalee Serigne Touba ci ak sax ak noflaay ak boyal te coono yi jiitu woon ak tumuranke yi dara du ci delluwaat safar yooyu mooy safarul jisaay wa sawaabi wal ajri wa maxwi taxa bi bilaa isbaat sa in min nga xam ne safar yooyu ci la sunu borom di faye sëñ Tuubaa di ko jox ak yool di ko fulal fay ga waaye nag bu isbaatu raaxati bi laa radi say min haksiya saxal ko nag noflaay ba faw yi ñooy yi ma la wax moom la ñu tuddee safarul xaraaji kon safarul xuróoji ak safarul xaraaji yi rek moo am moo tax sëñ bi def ñaari xasit yi mu tuddee muhiya safarul xuróoji ak ñaari xasit yi mu tënkee taaba safarul xaraaji kon ñaari xeetu safari rek ñu am moo tax bi safarul xa bi bi bi safarul xaraaj ñëwee mu indi xasir yoo xam ne da koo tënkee nag mu xiya safarul xuróoj nga xam ne kon safar yi nga xam ne sunu borom da daan jëfante moom ci jalaalam effacé wu na kon gis nga ñaari sa safar yi ñu am safarul xuruj safarul xaraaj moo tax boo demee ci xasir yi sëñ bi tënkee mu xiya safarul xuróoj yi ca bayit wu ci njëkk sëñ bi leeral li ma doon wax léegi nii muy mahal jamilu safarul jalili nihma habibi daa xalili mahal jamilu safaral jalili nihma habibi habasa xalili lu yéeme na suñ borom mi nga xamee ne mooy aji taar mooy jamil essentiel na ma safar ya nga xamee ne ci laa ci la doon jëfante man ci jalaalam essentiel na moo ko nag léegi safar yi nga xam day jëfante man ci sama jamaal ni xima xabib yi nag zaqal yi loolu moo ci yéeme safar bu njëkk ba booba suñu borom da doon jëfante moom ci nekk gi nekk xaritam sëñ Musaa Ka ne xarit ba lay musi baal mbaate muy ku muy baal kon booba ci maqaamam xalil la nekk moo tax moo waral musiba yi ak balaa yi waaye yi mu àggfee ci nag maqaamam xabib nag di soppe foofa la la suñu borom nekk ak moom ci jamaal ji kenn ku ne xam na ne ki nga sopp sa taar say rafet rafet moom nga koy wan loolu mooy jaar gi suñu boroom jaar ak moom ci xadratul jalaal yi ak xadratul jamaal yi pour tënk rek ngir waxtu wi dem nañu ñaari safar yooyu ma waxoon muy safarul xuroo ji ak safarul xaraa yi yooyu yëpp nag benn aaya alxuraan da leen a tënk muy alladina xaala lahum annaas inna annaasa xat jamahu lakum faxsawhum fa zaaduhum imaanan wa xaaloo xasbuna allahu wa nixma alwakilu loolu mooy safarul xuro bi te mooy gaa yi nga xamee nit ñi dañu leen wax ne nit ñi dajaloo nañ contre leen ngir lor leen nang leen ragal nee na wax ji wax gañ leen wax loolu nag ak dajaloo gi nit ñi dajaloo ngir lor leen دول لين گم يالا ني وخ حسبنا الله ونعم الوكيل لولا موي سفر الجليل ييغا خامي ني تي لا سيغ بي سون بوروم دون جيفنتك موم تيا سفر يوي موتاخ بو بو ديفي تيا سفر الجليل فم تامبالي موي ليغي گيج گا اك نوتي فم تامبالي لاكو جيتو تي اجوما جا nga xamne aljuma ca takusan la sëñ bi defal xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee ci xasbuna allahu wa nihmal wakilu dëppog aay bi moo tax mu ne xamitu man yaxsimuni min darar min kulli seytaanin wa jinnin wa basar foofa sëñ bi kon mi ngi woon ci foofa foofa mooy mooy booba ba ca des nag mooy safarul xaraaji nag mooy la jeexal aaya ba fan xalabu bi nixmatin min allaahi wa fadlin lam yamsum suun wa tabahu ridwaanallaahi wallaahu suu fadlin xadimin bu njëkk ba mooy fa mu toll ci wéeru ci yàlla jël ay mbiram jébbal ko yàlla moo tax xasida xasbunallah wa nikilu ak xasida oofa yu di amri ila ila bu bari nga xam ne wéet ko ci yàlla la ak wéeru ci yàlla moo toll ak alisina xaalifu naas innaas xad jama lakum li safarul xuruj waaye moo tollee nag maqamu sabr wa sukru xalaa ma yusbiru alayhi natt yi ko sun borom def mu di ko muñ àgg ci sax ba gërëm natt yooyu di ci sant sun borom yooyu moo tax nga gis xasida yi cant yi ci jamonoy natt bi lu mel ni ne xasida asiru mahal abraari hiina asiru nga xam ne sëñ baa ngi wax ci biir naan tajxalu bihaa xasidati tajxalu bihaa xasidati min ahabi sukri sama xasida gii na nga ko def bu bokk ci cant yi gën a màgg cant yi la gën a yi nga gën a sob te booba mooy fi mu nekkee ci maqaamu asukru xalaamaa yusbiru xale yi nga xam ne ma ngay wax ci biir naan li mawlaaye hamdi raadiyan xanu saakiran xalaa sirri sirri wal xabiiru xabiiru nga xam ne foofu ma ngay sant suñu ci nattu yi maqaam yi ma waxoon nag ci wéeru ci yàlla gi mooy loxo umur yi fawattu wal xal bu tayyibun booba ma ngi ci biir nattu ba mooy xusuur yi xalaat wa daxalu xam ne tafaraxat li matti la si xan huma dixu xasiru kon ci tënk daal ñaari safar mu am safarul xuróoj safarul xaraaj bii moo tolloog alla ci ne xaalahum naas ilna sa xat jamaha lakum bii moo tolloog fanqaale boobu nixmatin min allah fadlin ñooñee nga xam ne gars yi dañu la waxaan nit ñi dajaloon nañ ngir lor leen ragal leen ñu wéeru ci yàlla wax ne dañoo wéeru ci yàlla nee na nag bañ defee loolu suñu borom dina la jox xéewal ak ngëneel te lor laalu leen ñu am ngërëmal yàlla kon safarul nag mooy fi sëñ bi amee moo tax mu digle màggal gi digle ko ci cant ci ñaari tànk cant yi muy balaa bi la suñu borom def natt yi ma teg nga muñ ko gërëm ci sant ci yàlla waaye nag xéewal yi mu la defal nga sant ko muy ab taxaddus bi nehmati kon magal nga ñaari tànk wi rek la am mbokk yi dafa mel ne waxtu wi ñett nañu kon lii rek lañ leen indiloon tey seen jotaay bi wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum